40 sunu gan Mamadou Mignane Diouf salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa RFM ñi déglu Sénégal ay à ñu ngi lay fay di nuyu Georges euh, yow yaa jiite Mamadou Mignane Diouf euh, forum alternatif mondial euh, de xam nañ ni am na forum bu ñuy wax forum mondial de l'eau bi nguurug Sénégal ak normalement ville de Dakar di daloo tey ci ñaajo Euh, ville de Dakar googu gisuñ ci seen bopp ndax ñoom ñoo ñoo ko war a organiser état bi nangu ko ci ñoom seen gis-gis ba tax ñoom it ñi ngi amal seen forumu bopp yéen itam ngeen amal seen forumu bopp euh, lu waral euh, gis-gis bu wuutee ci organiser gi lu tax yéen ngeen ngeen ngeen beru du du guléet lu tax ngeen beru wuuteeg bi am ci jam ñaajo wuuteet itam bu bu bu mairie bu Ndakaaru jërëjëf euh, sëñ bi Fall waaw dama buggoon bëggoon rek euh, nuyuwaat ni ñi di préciser itam ni ci njëlbeen ba bi nga xamante ni forum social de mondial de l'eau euh, am na commencé na édition yi ci am yëpp dafay am li ñuy wooyee forum alternatif forum alternatif nag doon espace boo xamante ni Euh, organisation société civile yi mouvement sociaux yi ONG yi droit de défense des droits de l'homme ñoo koy doon faral di organiser léeg daan na janoo face à face ak site bi nga xamante ni mooy situ forum mondial de l'eau bi nga xamante ni euh, état yi collectivité territoriale yi ak association bi nga xamante ni mooy conseil mondial de l'eau parce que foofu aussi il faut que nit ñi xam ne kii organiser forum mondial de l'eau du Nations Unies du du gouvernement benn association la du droit francais bu nuy wooyee conseil mondial de l'eau bu ñu déclaré en France association boobu ca njëlbeen ñun ñëpp ñoo ci nekkoon société civile forum social mondial ONG yi bi ñu dawee quelques années ñu xam ne suñu gis-gis dafa xaw a wuute ndax ñun dañoo doon gis ndox ni doonul loo xamante ni marchandise la ci débat yi souvent yi ñu daan faral ci am ak ñoom ci réunion technique yi ci programmation yi ñu xam ne ñoom dañuy gën di ubbi forum mondial de l'eau di ko ubbil entreprise privée yi multinationales yi homme d'affaires yi donc bi ñu gisee loolu xam ne suñu gis-gis xëy na wuute na te bëgguñu yàq mbir mi ñu wax ñi doon représenté ci biir conseil mondial de ñaari indien la woon benn africain ak benn français ci débat yi ñu ne kon nañu génn ci comité d'organisation ci comité pilotage bi mais fexe itam gën a dëggal li nga xamante ni mooy espace alternatif bi ñu wooye forum alternatif mondial de l'eau moo tax tey jii bi muy ubbeeku fii ci Diamniadio mu doon itam mbégte gu rëy pour Afrique subsaharienne ndax mosu fee am forum bi am na fu nekk mais mosul na Afrique subsaharienne am na nag Marrakech fii ci Maroc mais dama bëgg a préciser ne ñun bëriwunu li ñu defoon Marseille 2012 mu am lu grand forum mondial de l'eau ci stade Vélodrome bu Marseille ñun ñu nekk ci benn espace universitaire mais tereelu itam sunu délégation yi boo ci gis amoon na badge yu dugg ci forum mondial de l'eau justement ca laa bëggoon ñëw est-ce que gënatoon ngeen am benn tànk ci biir benn tànk ci biti di yëglu seen i jàmbat mais moom la ñu def tey ci suba am na délégation yoo xamante ni sunu commission société civile composé de ay sénégalais ay maliens ay nigériens ay togolais ay nigi euh, gana ghanéens et cetera ñoom la ñu sepp ci suñu commission ci suñu groupe ne leen yéenay nu représenté ci forum bi nga xamante ni président Macky Sall dina ko ubbi jox leen itam benn charte benn feuille de route ak sunu position officielle mais bu ñu buggee jël trois cent quatre cent personnes altermondialistes yóbbu leen jamñaajo ñu fay daje ak ñoomin Suez ak ñoomin Veolia mën na am débat yi liñ ci bëggoon a dégg yëpp duñ ko mën a dégg moo tax ñu def délégation boo xamante ni mooy yóbbu suñu position waa Caritas bokk nañ ci abbé Alphonse Seck tey wala suba am na loo xamante ni moo ko war a animé ñun am nañ ku mel ni Seydou Ndiaye ku mel ni Mame Tako jàlloo ñoo xamante ni itam daa ñu animé ay panel foofu man mënuma dem foofu parce que man may coordonné li nga xamante ni mooy forum alternative mondial donc ñaari tànk yi ngay wax loolu moo samp forum mondial de l'eau tànk société civile mhm. ak tànk entreprise euh, gestionnaire de l'eau état parti yi nga xamante ni ñooy ngànk nguur gi mhm. euh, ndaje yi bëri na réunion yi bëri ci wàllu ndox te boo xoolee àddina ndox mi moo ëpp suuf si terewul noonu la manqué ci nit ñi ñu soxla ko lool nu ñu mën a expliquer loolu. très gis nga loolu nga wax Babacar. moo taxoon ca njëlbeen solo gi ndox am ci dundu doomu aadama ci kattanu yàlla ndox ni nga ko waxee ma ëpp suuf ndox mi ci gën a baax itam tuuti la un tiers la daanaka trois pour cent donc ça veut que liy def dund li ngank dund ndax Babacar yooyu yaa ma gën a xam ni. doomu aadama bu ko yàlla wooyee mu gane si àdduna li ñuy njëkk a soxla ci nganam googu mooy ndox bés bu doom juddoo ci kattanu yàlla dañuy wut ndox rapidement sangu ko jox ko yaay ji kooku itam bu dundee ba dund gi jeex mu dellu bakkanam ci yàlla imam bi prêtre bi li muy njëkk laaj mooy ndox am na fi ñu sangu ko daf ci li ci war yëpp delloowaat ko boromam lu fi meññ Babacar xam nga ne ndox na donc loolu moo taxoon ci njëlbeen acteurs yu bari dajale xam ne ndegam ndox moo ngan ko dund nañ fexe ba li ngan ko dund ñu koy waxtaane ñaari at yu ne loolu moo indi origine forum mondial de loolu nag tey jii ci biir Afrique il faut ñu xam bu baax ne défi yi ni tubaab di wooyee defi maanaam gàllankoor yi bari na trop pour que ndax nit ñi mën a yegg ci ndox ci anam yi ci gën a yombee yomb bi mooy mu bañ a cher ndax ndox amul njëg mais am na coût boo xamante ni dañ ko ci war a def yooyu pour ñun bu ñu dee wax sécurité mooy sécurité bi nga xamante ni mooy tax nit ñi xam ne ndox doyul ndox dafay jeex ndox dafay yàqu dafay dafa doon itam loo xamante ni ñoo ñëpp ñoo ko soxla li ñëpp soxla mën na indi guerre ci biir nit ñi donc ñàkk ko waxtaanee wóorul donc pour ñun loolu moo indi espoir bi nga xamante ni origine bi nga xamante ni forum mondial de l'eau ngànk na ko di ko def léegi nag ci biir réewu Afrique yi ci mel ni Sénégal il faut ñu xool li nga xamante ni mooy gën a yomb mooy gën a baax pour que inégalité d'accès ci yegg ci ndox mi dañ inégalité yi commencé na bi nga xamante ni bu ñu jëlee boobu misaal Sénégal pour capitalu Ndakaaru moo ngi tibbee ndoxam ci lac de Guiers trois cent kilomètres mais à cinquante de lac de Guiers am na ci dëkk yoo xamante ni bu nu soxlaa ndox dañuy dem ci déeg ba tànk ñëw taaj ko ba mu noppalu ba mu sell ñu sëgg ko def ci benn produit bu koy traité doog ko mën a naan. est-ce que loolu euh, inégalité est-ce que yooyu ngay wax samp ñu seen i gët ci Afrique. ah mais oui li ñëpp soxla kay nag sëñ bi Diop li ñëpp soxla ñiy jaay di wut bénéfice di wut profit seen i gët di jóge ci li nga xamante ni ñëpp soxla nañ ko ñu xool ñoom nañ la ñuy bindoo nañ la ñuy taxawee nañ la ñuy positionné woo pour que li ñëpp soxla ñu fexe ba mu dugg ci njaay ci seen yi doxo bu boobaa seen bénéfice yokku est-ce que xam nga ne ndox léegi. xaalis leen gën a yëkkati que. assurer sécurité loolu nga bëgg a wax. évidemment ndox léegi dugg na ci bourse de valeurs xëy na mun na am fii suba wala ginnaaw suba bu Babacar def journal annoncé la bourse des valeurs annoncé ndox yegg na wala wàcc na. missal ci SDE ak Suez euh, sd ak seen Sen'Eau euh, sénégalais gisuñ ci ak wuute lañ daan dund ak sd e, moom la ñuy dund ak seen o waaw loolu nag moom lu ñu du bet defe naa ni ñaari at yi weesu depuis dix neuf deux mille dix huit deux mille dix neuf ba vingt vingt et ñun waxoon nañ ne dara du soppeeku bu dul def lu yokk loolu Babacar defe naa ci plateau bi mos ma fa ci invité ma wax ci. loolu itam doon na loo xamante ni ku leen diggoon ki duggoon sénégalais yi ne bu kale ñëwee ndox mi dana yomb dana teew dana baax kooku dañ ne woon da leen di nax te naxee mbay boobu tey ji ñu bëri ñëw nuyu woon naan nan ngeen defoon ba li ngeen doon wax. tey jii mooy lu ñuy dund ñooy leen mañ duñu dund duñu ay ay magicien añ xamoon na rek ci disposition calcul yi ak programmation bi ak système bi loolu moo mënoon am amul leneen ndax kii ñëw indi xaalisam am directrice am directeur am ay chef de service di jaay mais kii jaay nag bénéfice lay wut wutul di yóbbu lu bànneexu ni ñi loolu nag moo tax tey jii amul benn différence lu ci xanaa lu ci yokk te itam doon loo xamante ni li ñu diggee woon Sénégalais yi daanaka kenn ci ñoom gisu ko te du bileeg suba ak ginnaaw suba ci 15 ans yu contrat bi am gisuma ci loo xamante ne tax ñu mun a wàññi njëg li xanaa Sénégal taxaw négocier waat contrat bi imposer ko bi mu wàcc. te prix boobu itam ni mu chéré fii ci Dakar noonu la chéré ci ci ci réew ci réew àll bi. mais est-ce que waa àll bi gënuñoo cher leen. ñoo gën a euh, ñoo gën a euh, cher leen. loolu tamit euh, ñu bëri comprendre luñ ko forage yi ne ci àll bi ñu jox ko ay société privée ñuy fayee ko waa àll bi fayee ko wu cher léeg sax yëf yi paan mbaa mu jafe. loolu nu mun a nekk ci réew mu Sénégal moo xam ni waa taax dañoo néew doole waxuma la ak ñi ne ci biir réew mi nga xam ne ñoo gën a néewati doole ñu leen di jaay ndox ba noppi jaay leen ko ci lu seer. te li ci gën a métti nag Babacar ci li nga wax noonu mooy que ni forage yu ci bëri du état bee ko construire am na ci forage yoo xamante ni diaspora dëkk yi ñoo cotiser construire ko joxoon ko waa dëkk ba ñu koy liggéeyee ji ko gérer ci comité de forage man mii daanaka mos mun naa wax ne bokkoon na ci comité de forage kis fi ma dëkk ci fim la beneen bi itam mooy que yeneen forage yi ONG yi ñoo ko tabax. mais comité de euh, comité de forage yi askan wee ko doon gérer waaye bëri woon na tamit ay coow loola ki jafe-jafe. waaw loolu itam ay luubal ak yu ñoom seen. loolu si loolu itam xëy na am na gis nga luubal yooyu ngay wax ak coow yooyu. politiciens yi ñoo ko doon dugal ci biir comité de forage yi mais bés bu ñu mosaan a bàyyi jigéen ñi éleveurs yi producteur yi mag ñeek ndaw yi ñuy gérer commité de forage yi xëy na mu am panne technique ñu am jafe-jafe leen ko réparer loolu nag moom doonoon wàllu état. fexe ba comité de forage yi ñu teg seen wet ay techniciens yoo xamante ni fu ñu leen soxlaa ci guddi ñu jóg comme ni nga xamante ni SDE wala CNO e bu soxlaa techniciens yi lu mu guddi di ñu jóg loolu waroon a def mais bàyyi nit ñi ñu gérer seen bopp forage mais li nga xamante ni doomu aadama yi ñoo ko cotiser liggéey ko wala état investir ko jox leen ko jékki-jékki jël benn privé am na ci privé yoo xamante ni ñi ci nekk ñoo ngi jóge Suisse nga jox ñoo ñu ne dem ci dañ dem ci àll bi di facturer deux cent francs le ki bugg a nandal ay nagam ay fasama ay xaram ki bugg béy ki bugg yore njabootam amul benn revenu mensuel nga koy facturer ndox deux cent francs ak lu teg bu buggee def adduction nga koy facturer trois trois mille trois cent mille francs wala deux cent mille francs loolu dafay doon li ñuy wooye ñun marchandisation de l'eau maanaam fexe ba ndox bañ a doon àq ak yelleef mais mu doon marchandise boo xamante ni ki koy soxla daf koy jënd par force te di ko jegee njëg loo xamante ni du njëg lu yomb ni ñuy facturer ñooñu moo gën a metti li ñuy facturer service public de l'État fii ci biir capitale bi te loolu état dong moo ci war a mun a taxaw ñun ŋàññ nañ ko leeral nañ ci wax nañ ci xamal ni ngeen ni loolu mënta nekk ñooñu ngay tudd am na ci ñu bari ñoo xamante ni tey jii ci sunu marche daanu ñëw indi seeni kàddu xamal ni ñi ne ñun ci àll bi kat suñu dund ndax ndox mi non seulement pas du ñëw mais bu ñëwee dafay cher mais marchand marchandisation bu ndox moom ngay wax du gaaw a jeex bu fekkee ne euh, ay ndaje yu mel nii forum mondial de l'eau bii nii ni nga ko jàppee mu ngi wéyee niñ koy organiser ndax multinationale dañuy ñëw pour am ay marché lu ni mel lan la sunu nguuru Afrique yi war a mën a def ba ndox mi mën a egg ci diwaan yépp te du cher. très bien ñun dañuy défendre le principe des services publique de l'État. Mmh. service publique de l'État jiitu na ci ndox. il faut que état yi jëlaat ndox ci seeni yoxo génne ko ci privatisation walla délégation délégation boo xamante ni dafay mujj dem ci privatisation daanaka moom la ñu gis ci monde rural bi délégation bu ni mel baaxul est-ce que xam nga ne ci réew tugal yi bu ci mel ni France am na ci dëkk communes yoo xamante ne ay villes yoo xamante ni dañoo nangu seen privatisation seen délégation dàq ñi fa nekkoon créer ñoom seen régie communale seen régie communautaire pour mën a gérer sa ndox te noonu ñu ko buggee ak dañ ko soxla Marseille bi organisé woon forum mondial de l'eau 2012 ndoxu waa Marseille maire Marseille moo leen koy distribuer di ko sponsoriser wala en tout cas di ko yombalal ñi nga xamante ne ñooy citoyen ci biir Marseille donc sa question boobu la réponse mooy que ni gestion publique de l'État des service de droit comme eau comme santé comme éducation na des dans les rôles régaliens d'un État ñu bañ ko déléguer kenn sëñ bi liy def sa dund sa njaboot boo ko dee buggee dënk keneen ci giti sa sa benn dëkkandoo mën na am sa njoboot jooytu wala ñu manqué li nga xamante ne bañ koon manqué foofu la réewu Afrique ci toll donc xëy na forum bi ñun suñu position wax nañ ko suñu délégué dañ ko wax foofu waxaat nañ ko itam dañ ko def ay recommandations ci forum alternatif il faut que les services publics de l'État jëlaat ndox li nga xamante ni moom la ñu imposé woon à l'époque des plans d'investissement structurés par banque mondiale ak FMI tey jii xëy na weesu nañ foofu mais même bu fekkee génnuñ totalement ci situation yooyu mais nañ dellu si waat service public yi ndox nekk ci loxol buur ndax ndox sécurité am warta nekk ci privé warta nekk ci entreprise extérieure sécurité bi warti ndox ak li ci war a ànd yëpp pour nga mun garanti garantie sécurité boobu il faut que mu nekk dans les services publics. am na hmm. réew yoo xamante ni ndox mu ngi ci loxol armée léegi bu bu weesoo li ñuy naan ak jëfandikoo ko Euh, euh, du loolu rek moo am solo ci ndox assainissement ci la gis nañ ni jafe-jafe Sénégal pour jël misaal ci réew mi nga xam ne moom lañ ne fi mu toll nii te mu soxal ñu euh, lu tax tardement gi ci assainissement ci senegal demee nii est-ce que dina mës a saafarawu ndox yi bon yi ñuy jëfandikoo ba noppi amul fu mu aw bu tawee ñëpp jaaxle. waaw normalement war na mën a réglé wu ndox moomu sama mbokk Burkina ba ñu ngi koy woowee l'eau endormie maanaam ndox mu nelaw <laughs> ndox mi nelaw. ñu utiliser ko dugg sa douche Babacar ndox mi génn am na ñoo xamante ni technique yi technique yi tey vraiment bari na bari yaay boo xamante ni buñ ko soxlaa woon ndox moomu ñu am nuñ ko réutiliser mu bañ a nekk ci mbedd mi ak xasawaay bi ak xeeñ bi mu mel ak coono yi mu indi ci wérgu affaire wérgu yaram moo tax ñun suñu slogan. bokk na mën nañ ko defaraat bañ naanaat ko. war nañ ko mun defaraat même buñ ko naanaatul gazon yi ak yenn plante yi ak yenn jardin yi. xëy na boo buggee wax loon noonu fii suñuy réew yi ne dañuy naanaat ndox mi ne mel mun na am indi problème mais technique bi am na pour que sax ñu mun ko mën a naanaat man dem naa benn réew yoo xamante ni dañuy traité waat ndox mi delloowaat ko ci réseau bi une partie ñu traité waat ko dellowaat ko ci arrosage bi ci irrigation bi mais xëy na ñun fii am na valeur yoo xamante ni boo ko bëggee xamal ni ñi ne li ngay naan foofu la jógee ñu am nañ ko gisee mais technique yi am na avant technique yooyu nag ndox mi nga xamante ne moo ngi walangaan ci biir dëkk bi ndax fosse yi ni mu waroon a demee demeewul noonu assainissement bi ni mu waroon demee demeewul noonu gis nga assainissement boobu li ci war ci investissement partenaires yu bëri nee nañ duñ ko ci def ndax xaalis gu bëri la état yu bëri itam jàpp nañ ne ni mu baree noonu da gën a jafe pour ñu mun koo def léegi nag état yi ñoo war a am fayda gu mot sëkk. xam ne cycle ndox liñ hmm. tubaab di wooye cycle ndox bokk na ci fi mu jógee bi mu génnee niñ ko utiliser ak ni muy delluwaat ci suuf si cycle boobu il faut ñu topp ko ni mu war jërëjëf Mamadou Mignane Diouf jërëjëf Georges ñu ngi nuyu yi ak ñi mu toggal ñëpp mbokk yi ñu yendu ak jàmm